digganteeg sa wujje muy sa rakk wala sa mag def ko bem mot sëkk bu loolu amee rek néeg bi dina neex te xam nga leen naa ci benn pexe ci na xëy na jigéen ñi xamuñ ko waaye gis nga seet ak aaw buñ mànkooyee rek jëkkër am problème waaw dañoo foog ne na dafa jafe waaye saafara si mooy seet aaw bu ànda mànkoo ndax yoo góor gi léeg nga def dara sax nga gis ñu ngi toog di waxtaan di ree sax sa xel ñaaw nga bàyyi sa xel bu baax a baax a baax léeg nga bugg wax sax nga xelaat ne xee ayda mi mbaa su ma waxee lii su faatu ñëwee du ko ko wax yi walla mbaa su ma jaaree moom fii du ko laaj léeg-léeg nga nga nga def dara sax ci sutura soo moytuwul buñ jubooyee lool nga feeñ ndax boo demee lu moo gis fa piis bu rafet nga jënd ko denca ko xaar ba ngoon nga jox faatu mu ngi juboo Aysatu yow fàtte nga Aysatu dañoo toore faatu ah Aysatu yooyu su ma jëkka de piis bi may ne mbaa jox jox na sa sa bos musiba ñëw kon kon eh, du feen sax xëy na juboo la déggoo nañ foog nañ ne lim lim ko defal defal na ko kële moo tax saafara si daal mooy seet ak aawoon nañ juboo buñ jubooyee rek jëkkër am problème jëkkër dina jub lum jubadi jubadi bu waaw xel mi dina dalit ba pare noflaay dafa am ndax dafa dem ba ci biir njaboot gi nga gis ne juboo dina ñëw ci biir njaboot gi te yenn ay góor yi dañ ko def dafa dafa dafa dafa dafa jur musiba léeg-léeg nga féetee ba féetar mu dem ba xam nga doom yi dañ dee wujjale dañ dee sotle te dina am foo xam ne boo fa jaaree ak yaay ji bu demee ba yàgga Eh, doom ji dañoo sotle mooy ña xeex rek doom ji ne dama du def daal dama xaar ba caaya ji laal ma caaya kay <laughs> kooku moom kooku moom am na fu mu waaw waaye tam ñu nangu nag ne yàlla moo santaani loolu du ne rek góor ñi lu leen neex lañoo def mooy leen may ñu denc ñaar ñett ba ñeneent góor gi wax na ne xëj na dina romb foofu waaye ba ñenent yàlla may na leen ko kon nag ñu xam ne loolu eh, ci diina la te itam ñu góor góorgóorlu eh, ñun ñëpp ci loolu la ñoo dundaan du rek seen problème la de réew mi yëpp addina bi yëpp ci problème boobu la ñoo dunda problème boobu lañ jàkkaar loolu moo tax ñu gàccee waxtaan pour saafara am ñi ci ne ñu xam ne lii lu yàlla santaane la kenn ku ci nekk def li nga xam ne mooy waru garam ci néegi sëyam muy séet bi muy aw muy ñaareel muy ñetteel muy ñeneenteel kum ci munti doon ku ne rek dafa am lu la war ci biir néeg bi boo ko defee rek jàmm dina am mm-hmm. te bu jàmm amee rek góor gi fan wi gudda jàmm am xel mi dal lu wuti mun koo gaaw a am mm-hmm. su loolu rek lañ ci bëggoon a pour naa ne sëñ bi tam am na am na lu mu ci bëggate. asalaamaaleykum maa ngi nuyu gan ñi ñëw dekkal aada ak cosaan maa ngi nuyu alkaali dëkk bi imaam bi ak waa dëkk bi yëpp yaay compagnie ak seen doomi compagnie yëpp maa ngi leen a nuyu ah, waxtaan bi tey am na solo trop daanaka laal nañ bunta yëpp li ma ci bugg a dolli rek mooy eh, ci cosaan maanaam ci suñ gëstu seet su ñëwaan ci dëkk dafa daf daan ñëw pour dëkk bi yëpp waaye léegi seet su ñëwee kër gañ ko indi sax am na ñu ko tax a jóg am na ñoo xam ne daanaka ñemewuñ koo wax dëgg su su wàccee yoon bu njëkk a mag ñi suñ nit ak jabaram amee problème wala nit ak jëkkëram am problème dañoo ñëw defar ko si biir mbokk dañ leen dañ leen a laaj leen kan moo wàccee yoon ñu teg ko ci yoon waaye tey daanaka yooyu yëpp dàqu na léegi ñu ngi topp aada tubaab bi comme ça su la sa jëkkër defee lum la warta def wala ngeen jotee si biir néeg bi da ngaa toog rek dégg na jabar dem na report ko si police walla wala dem na report ko si yoon dem nañ ñu àtte leen te jabar bi soo ko àttee wan ko ne sa jëkkër moo la tooñ ñu daan jëkkër bi alamaan ko sey boobu du mun a tee neex mukk kon mag ñi niñ daan defaree sey loolu lañ war a gëstuwaat indiwaat ko ku wàcce yoon ci sey nañ ko teg biir néegam wax ko ni sey di war a demee ndax ku nekk dafa am àq si ah, ñaareel ba li ma ci bugg a indiwaat mooy comme suma jigéen bi li mu waxoon si problème mu aaw ak soo buggee beneen jabar mu ne soo demee pour ñaareel wax ko li am maanaam bu dem di ko wax jaay alal wala wax fa yoo xam ne euh, bugg a jabar rek moo la ko teg dem na bene soo demee wan ko ne suma aaw bi dama bugg soo demee toppal si kawam waaye foofu mantam tam li ma ci bugg a teg mooy ne su fekkee ne aaw bi mu ngee dem si lu la neex waaye fekkee aw bi fu mu xëy xëyloowuloo ko si lu mu nekk moo ko xam yow gëstuwul la ci dara soo demee pour uti ñaareel foog naa doo taxaw ne ko toppal suma aw bi kon sa kër tas foog naa loolu tam daal bëggoon naa ko cee dolli. wareefu sëy dara jiituwul ci amam doom ak njaboot ci kër yi ñaar mooy wareefu sëy ndax ci lay sëy di wàcce ñaar yu mooy comme li maamu bàyyee toppit bi maamu Dramé mu la bàyyee aji maam bu sum ñu def ci laal tuuti mooy aada ak cosaan lañ wax ndax xale bi ngay muur muy sëyi ci situation bi nga ko yaree muy sëyi boobu lay yaakaar ne moo dëggu moom lay yóbbaale fi muy sëyee ndax xale bi tey su fekkee dafa nekk xale nga jur ko fi nga ko war a juree war ko yar fi nga ko war a yaree waaye loolu yëpp daf fi xale bi tey boo ko juree li koy njëkk a def yow mi yaay ji walla baay ji bu defee jafe-jafe la koy njëkk def mooy di ko saaga mu yaakaar na saaga rek mooy li war a dem di ko dóor di ko wax wax yu salte yu bon muy dégg wax yooyu ëllëg bu demee kër jëkkëram su amee ak jëkkëram jafe-jafe wax yooyu mu daan dégg yow nga koy wax ak waajuram wala nga daan ko ko wax moom ci lay départ na moom ci la war a départ ak yow ndax xale boobu tey mun na fa jur moom ndax am sa jëkkër di tudd ay cëram walla muy tudd sa cëru yaay ngeen nekk ci biir kër gi ndax kooku mun na fa jur lu barke ca kuy ku ne pour barke moo tax kuy ku ne pour barke moo tax loolu muy beneen topp bi beneen topp bi mooy damay dugg man ci hospital yi dafa gis jigéen ñi niñ fay jànkuwante ak noos yi ndax wa gàddu sécurité noos ëmb neuf mois dem hôpital feebar nekk ci ay jafe-jafe noos bi nga xam ne moo la war a entre deux la dalal la bon di la wax wax yoo xam ne nii di la bund xatal di la puus di la xatal ci jataay boobu ba yow sa feebar boobu day gën a métti kooku war nañ ci noos yi nga xam ne dinañ seetaan émission bii ñu ci bàyyi seen xel bu baax ndax mag mu amul doomam ñëw ci hôpital bi gone bu ko jegee rek war na ko wax lu mën a tooge fa recevoir ko wax ko wax yu neex su amee garab jox ko su ko amul jox ko ci yeneen condition jaar la ko ci yeneen condition yu mën a fajoo man suma jëkkër bu njëkk de bañ ma koy may xamuma ko gisuma ko suma papa dafa xëy rek na ma suma yaay daf fi ñëw ne suma rakk la la buggal léegi loo ci wax ma ne ko yow loo wax rek baax na may nañ ma ko ñaari at gisuma ko ba ca ñetteel ba ci laa ko doog a gis bés bu ma ko njëkk a gis néeg bu ma ko fekk bu ma ba gis ko damaa daw dëpp. xëj na yow la nga gis ba tax nga daw. bokkutoon ci li sa waajur nëmma ba maye la xëj na loolu suñ ko xamee dina dimbale waajur yi ëllëg naka lañu war a doxalee ñi ñoo maye naka lañu war a doxee ñi ñoo ñaanit naka la war a doxee. maye naa suma doom si junne CFA ña ñetti téeméer angale ndek bugg doom ju baax sëy bu baax yor bu baax ñetti téeméer si angale ci laa ko maye ci la sëyi ma joxe ko géewuma ko xootuma xoowuma ni yaay xoowuma kenn bi ma demee baayam d'accord ci laa ko maye ci laa ko joxe wan borom ne ko ñett laay daw kóllëre ak yaakaar fu mu jeex jeexal na bi mu jeexee dama jël suma doom kenn yëgut ma jox ko keneen ku ko mën a jox dépasse ba tey wàllu sëy yi ñu doon wax affaire yi diggante góor ak jigéen gis naa ku yore ñetti jabar si kër di liggéey ñu wàcc ngoon ñëw dikk toog si ëtt bi jabaram yi attaayal ko ñu waxtaan ba tëri jot jabar ju ndaw tëdd ak moom ba guddi mu ne ko su ma nijaay mu ne ah mu ne ko dañu am benn yére boo xam ne dagg nañ ko ma bugg nga may ma ci may ma ci mu ne ko lu muy jar mu ne ko ñetti junne mu ne ko ah ñëpp am na mu ne ñëpp am nañ man maa des